bismillahi rahmaani rahiim subhaanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an laa ilaaha illa ant astaghfiruka wa atuubu ilayk wa sallallahu ala habibina wa tabibina wa shafiina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di lu soir seen émission bi ñu wax nafaxaat ramadaniya di nuyu mi ñëpp képp kuy suivre euh, Daaray Koki TV ci jëlee ci nuyoo bi suñu sëriñ Mawlaana mu rabbina alhaji Maxtaar Naarlo di ko ñaan yàlla yàlla guddal fanam lool tam ànd ak wér ñu ko jàppale ñëpp di yeesal ñaan sunu maam ji baax ji alhaji Ahmad Saxiir Lo yàlla yëgal ruuxam nga ca ruux yonente bi sallallahu alayhi wa ak waa waa këram sahabatul kiram yaan yàlla taxaw ñëpp euh, émission bi passé waxtaanoon nañu ci aaya boobu ñuy wax suratul eh, baqara yàlla def wax ne farataal naa koor ci jullit yi waxoon nañ tamit aaya boobu tamit waxoon nañ li ci aju ci wàllu koor ni muy tarbiyaa nit ci wàllu ci wàllu juux bi xiif bi ni muy kii yëpp te ñu bëggoon a ñëw ci beneen tomb boo xamante ne bi ne tamit dafa concerne ba tey weeru koor te mooy tuub dellu ci yàlla subhanahu wa taala ndax weeru koor weeru tub la chehru tawbati weeru weer weer loo xamante ne bi ni weeru barke la weeru yërmande la waaye weeru njëggal la sallallahu alayhi wa sallam nee na inna shaqiya man xorima ghufraan allahi fi hada shahri ki texee di dëgg mooy ku ñu xañ njëggal yàlla ci weer wi ku dem ba weer wi jeex nga def dese benn bàkkaar loolu mooy texee di waaye kon kon kon kon ku nekk war naa delluwaat ci yàlla tuub na bu ñu waxee mooy dëpp dëpp ci lu bon ñëw ci lu baax da nga daan def ñaawteef nga dëpp ca bàyyi ko daan da nga daan da nga daan da nga daan waxul amul nga dëpp bàyyi ko da nga daan ñàkk a tegal say waajur nga dëpp bàyyi ko da nga daan sàggane diine nga dëpp bàyyi ko da nga daan yéex a julli yooyu yëpp nga dëpp bàyyi fexe bu weer buy jeex rek yow nga tàggatu nga waat ci saf sàpp yàlla ndax euh, tuub mooy raxas bàkkaar te bàkkaar dafay gaañ doomu aadama ndax da lay soriloo yàlla te lépp lu la soriloo sa borom rek danger la da lay gaañ euh, jige yàlla ci alquran da am ñaari façon jige xurbu takkwin ak xurbu ruuxi takwiiniyan wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid fekk na mais ci wàllu ci wàllu mbind la yàlla moo ñu gën a jege sunu buud buumu baat yi xam ba daggee ñu faatu la veine du coup waaye nag jige yërmande yàlla jige ñi gën a njëggal yàlla jige ñeewante yàlla inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin kooku moom foog mu doon nga def ihsaan bàkkaar nag moom moo lay soril ba kii yàlla bàkkaar di ñaar daa am bàkkaaru am bàkkaaru biti bàkkaar bàkkaar biti comme bàkkaar bu ngeen baal ma naan sàngara bàkkaar def ñaawteef bàkkaaru sàcc bàkkaaru biir yi mooy bàkkaar iñaan soxor rëy bañ kaneen dégg nga yooyu bëgg àdduna gis sa bopp loo def naw ko bàkkaar yooyu tamit bàkkaar yi wax alxaan wazaru zahiral ismi wa batina ñaar bàkkaar yëpp bàyyi leen ko euh, tuub dellu ci yàlla balañ ci yegg si fokk ñu tamit danger yi bàkkaar am ci nit daan dafa am bàkkaar yi dañ ko imaam Ali am na benn ñaan ñu wax doan kumayli am na da ko catégoriser ay bàkkaar bàkkaar xeeti bàkkaar yi mu la woon zunubun ay isam bakkaar yi nga xamante ne ni buum gi nga xam moom aar moom moo lay protéger ba doo tàbbi ci lu yàlla lu yàlla tere yooya euh, tuub dana ko bokk na ca naan sàngara bokk na ca tamit xam ne moom mooy la mère des péchés mooy rëy bàkkaar yi bokk na ca carte gis nga alxuraan sax daf leen a daf leen a daf leen a seex la ñoom ñaar innamal xamru wala maysir bokk caaxaan fo fo allahu mooy kulli maa yulhiika anillah lépp loo xam boo ca nekkee dutul dutul yàlla dutul bokk ndeysaan waaw beneen bàkkaar bi mooy bàkkaaru tunzilun niqam yi xam day wàcce mbugalum sunu borom meram boobu tamit tuub dana génne te mooy suyon alfawaahish bu ñu demee ba ñaaw teef yi fees ñaaw teef moom la ka jekk nit ñi ko def waaye bu ñu demee ba nga xamante ne ñu koy def dañoo dañoo am dañoo ay kuréel am association am ay droit nga xam ne leen a gis nga xam ne kii boobaa tamit kii de suyon amul siiw bokk ci bokk ci système bi bokk ci jeu bi loolu tamit bàkkaar yooyu tamit bàkkaar yoo xamante ni dafay rey doomu aadama ak ak aadamul xokkee ma anzalallah li yàlla wàccee pour ñu tënku ci ñu dem ba tënkoon duñ ci atte woo duñ ko maanaam maanaam diine aw tur la rek pour ñu xam ni yow yow jullit nga da nga tudd Moustapha waaye lépp diine di bañ yaa koy def mu fësi kii ak ak tatif fil kayli mu nee ba tamit maanaam tamit boo raaj jëm si sa kanam mu dëll bu jëmee ci keneen nu mel baax na waaw boo nattee boo nattalee sa bopp mu baax boo nattalee keneen wàññi ci côté yépp nag yëmu rek yaam njaay bàkkaar yooyu te bàkkaar yoo xam ne tamit mi ngi ci penc mi te weer wi war nañ cee tuub ci yàlla yéen bàkkaar yoo xamante ne bi nii tu xayyiru ni'am mooy soppi eh, xiiwal yàlla yi bokk na ca dagg mbokk mbokkoo bëggante soppante yéenante jàmm ànd dund ak mbaax lu am mbokk ak mbokk xiiwal gu réy googu buñ demee ba dagg mbokk ñëw xiiwal yi day wàññeeku waaw dangay am la baral waaye waaye waaye daam barke yéex a julli ñu bàyyi ci xel baax a baax yéex a julli koor gi tamit ñu bàyyi xel gis nañ koor gi naafile yi macha allah jàkka yi de fees dell waaye ñoo xam la jàkka yi ni muy mel ni ñuy mel nañu góorgóorlu farata yi di mel noonu ndax farata yàlla balam balam laa nangul eh, dara farata yi day mat waaw kon bu sa farata mane matee na ba noppi nag nga dugg a ñëw na ci naa ci ci naafile ak diyaasatu mooy ñàkkaa ñàkkaa ñàkk a ñàkk a fiir ci njaboot gi fokk ñu fiire njaboot gi aar leen sàmm leen ak euh, bàyyi bàyyi dimbali kii bàkkaar yi yëpp dañ ci war a tuub dellu ci yàlla subhanahu wa taala yàlla jéggal ñu tuub nag daa am ay condition daam ay charte mooy li nga defoon nga rëcc ko am na dama ala maa faata wa niyatu allah yahuda illa bima qimnamri am yéene ni duutoo dellu ci bàkkaar comme euh, meew mi ñu génne ci dax bi ci ci ci datt bi ni mu jombe delloo ko ci noonu lay jombe nga dellu ci bàkkaar rëcc ko waaw tub mooy tub gu tub gu ñu nangu tawbatan nasuha mooy tub gu xam ne bi nii dañ ko dañ dañ koo nangu am na tawba euh, tawba sadiqa boobu mooy tub gu ñu nangu waaye am na bu ko tiim nag tub tub gu ko tiim mooy da ngay seexul bàkkaar seexul bàkkaar comme ngeen baal ma ci kàddu gi de ngeen baal ma ci kàddu gi comme bu ñu jëloon tey kenn la nekk ci wanag wa ni ko ni ko ni ko ni ko jëfandikoo ko añ ci wala weer ci ni mu koy seexloo mun munu ci am bànneex loolu ngay seexloo def lu yàlla tere loolu mooy ak tawbatu nasuux loolu ngay seexloo bàkkaar am na beneen tugg goo xam ne tugg baaxul mooy tuub nga rek waaye lazzatu zanbi fil bi neex neex bàkkaar ba nga ci ba tuub googu moom tuub googu tuub googu tuub la goo xam ne bi nii tamit tuub la gu ñu gu ñu gu ñu bañ mu daa mu mu mu des nag euh, dégg nga buddee ko ci bàkkaar bi bu ñu nee mooy mooy mooy nga buddee ko ci bakkaar bi comme comme comme comme ku teg sa loxo ak sawara ni ngay ni ngay tëbee wala boog euh, ku gis ku euh, kéwél buy lekk ñax gestu gis benn gaynde muy ñëw ni muy tëbee noonu ngay buddee ko ci bakkaar bi am ak dogu al azmu ndax li lay tax li tax nit def bàkkaar ma ñàkkaa dogu aadama alayhi ca ca ca alquran karim wala qad ahidna ila adam min qablu fa nasiya walam najid lahu azma ñàkkaa dogu moo tax mu daanu ca bàkkaar ba mu def foofee wa asa adamu rabbahu fa gawa ñàkkaa dogu kon boobu fokk nit ki tamit mu dogu beneen bi tamit mooy pour ñu nangu tuub gi fokk nga delloo àq yi seen borom raddu al xuquq ila ashabiha fekkee da ngaa tuub comme que mu ngeen baal sa jakarta dama jaag mu tuub delloo jakarta ki jël alali jàmbur dem ba jàng nga tuub delloo delloo delloo delloo delloo delloo delloo ay jàmbur loolu mooy loolu mooy tuub ci ci yoon yàlla kon tuub mi ngi noonu maanaam liñ ci liñ ci ñi liñ ci witte mooy yàlla bëgguñu yàlla soppuñu yàlla ñeewante ñu yàlla ñërëm ñu ñëpp ay juum yonent bi nee na yéen ñëpp ay juum waaye wax xeeru xabtaa ina tawaabu ñu gën ci ñi ci ñi ñiy juum mooy ñoo xam ne ñu juumee tuub comme ku nekk ci wanag wi rek euh, tilim dugg ci wanag wi sangu ba set sangu ba set set wécc sol sa yére set tuub noonu lay def doomu aadama kon kenn ku nekk nañ delluwaat ci yàlla subhanahu wa ñaan ko ba weer wee jeex ngi set wécci ndax attaayu min dan bi kaman laa dan ballahu bii di ñëw incha allah dañu waxtaan yéen ci alquran karim ndax weer weeru alquran mooy rabiul quran walhamdulillahi rabbil ngi seetaan daara Koki TV kon nag gaaw leen gaaw abonné te activer di jot lépp lu aju ci daara ji daara